avec l'esclavage nekkul woon tubaab yi ñoo ñëw di jàpp jaam yi nit ñu ñi ñoo doon ñëw di jàpp seen moromu nit ñu leen yóbbu ci tubaab yi loolu moom la jaraaf bi feeñal tey parce que bu fekkente ne ni bato yi dañoo nekk ci biir géej gi waxul ti bato yi mu ñëw ci secteur bi nga xamante ne ñun dañuy bay dundee tey ji ñun ñuy toog fii yëpp amul kenn koo xamante ne da ngay dem géej teer ñëw di xalaat loo denc bala ngaa wax dara da ngay dépense ba pare dèjà foofu faiblesse am na liggéey boo xam ne boo nee sangu dépense ngay njëkk a réglé kon boo liggéeyul est-ce di nga lekk dèjà moom daf ne mbaal mi boo ko soowee ci géej bu daggee day continuer di napp ñun dépassé nañ loolu ndax ñun ñun ñii mbala boog man ndax ku nekk sa bopp ngay waxal te yaakaar naa ne ñi fi toog ñëpp mbaal moo leen gënal jën li mbaal di jar bu ko jën doon jal kon waxatuñ ko mbaal moo gën a cher fuuf dépassé nañ xoolal gaal yi ngay gis nii benn ban gaal nga fi mën a gis nga nga jàpp ne gaal gi mbaalam mi su jàppee jën mënu ko yem bu fekkente ne ni dañuy xool luy métti la ñuy wax la racine du mal il faut aller la chercher ailleurs yabooy la ñuy ja lañ daan am jay ton xoolal wéyëng yow fii yabo bato yi da gis bato buy mbaal yaboy man loolu mosuma ko gis foo ko naa loolu amul bato day mbaal yi loolu lañu war a xool mais ñun ñun ñun mais ñun buñ demul géej lan la ñuy def offre d'emploi le président de la république wax n'est-ce ah tey jii ñun ñii tey jii ku ci nekk sa gaal lum néew néew néew néew di nga boot six personnes ah ah mbala dix personnes ah yor ñaari jabar mbaa nga yor ñetti jabar ñi koy yebbi ñi koy yenu ñi koy jaay ñi bootu ci secteur bi xajuñu fii ba tax na moom waxam boobu noonu jaraaf président de la République na ci def très très très très attention parce que moom déjà mandam moom mu ngi ci tànku expiré mbala